asalaamaaleykum Sénégal euh, Y'en a moo woote ab waxtaan ab janoog xibaar yi pour yëgal leen ni ñu seetlu ne kii di Macky Sall ngi salfaañee mi ngi nasaxal suñu démocratie mi ngi ko jëmmal ci jàpp gu métti gi mu nekk di jàpp ay citoyens sénégalais denc leen ba noppi Assane Diouf Clédor Sène Guy Marius Sagna ak ñoom Fatima ki ñeneen ñoo xamante ne jàpp nañ leen rek denc leen ci biir police bi ba noppi di leen jaabanteloo police tribunal pour seeti lan lañ leen mën a dàqal ñu seetluwaat ne mu ngi bëgg a taxaw ci ab mbir moo xam ne dafa soxal ñaari sénégalais mu bugg caa profité laxas ca politique pour éliminer koo xam ne adversaire politique am la maanaam mat Macky mu ngi nasaxal suñu démocratie kon nag dafa jot képp koo xam ne pro démocratie képp koo xam ne état de droit moo la tax a jóg képp koo xam ne sénégalais nga rek te sa réew ñor la nga jóg taxaw ne Macky Sall lii du fi amee ndax bu ngeen ko seetloo bi coowal Ousmane Sonko Adji Sarr tàmbalee yanama dafa toog di seetaan ndax daf ne ah affaire ñaari sénégalais la bi ñu xëyee nag gis état bi dugal ci loxoom jël machine bi mu yor di ko utiliser contre un opposant politique mais plus contre le citoyen si lañ ne nag ah attention la mi ngi affaire bi mi ngi ñuy bëgg a mi bëgg a xeeñ leneen ci la jóg ne kat lii duñ ko bàyyi mu jàpp moo tax ñi ngi woo képp koo xam ne sénégalais nga moo xam yaa ngi Sénégal moo xam yaa ngi bitim réew que incha allah le cinq muy àjjuma bii ñuy jëm incha allahu rabbi dana ñu doxee fi ñuy woowee place Washington ñu gën koo xam ci buntu ministère de l'intérieur dox jëm place Soweto ñu gën koo xam ci buntu assemblée nationale. dox boobee ci Dakar nag naka noonu lañ bëgg mu amee Thiès Tamba Kaolack Ziguinchor Louga ak feneen ci réew mi noonu la ñu mu am feneen fépp ci diaspora bi pour ñu wane àdduna bi yëpp que ne Sénégal askan ba jóg nañu xeex. Macky Sall nasaxal seen démocratie ndax amoon nañ ci ay jéego di fàttali rek ne 2011 bi ñuy xeex di am ay jéego Macky dafa demoon campagne yi bàyyi ñu ñun fii sénégalais yi ñu nekk place de l'Obélisque ñu rey ci ay sénégalais ñu dóor ñu fi ay sénégalais gaañ fi ay sénégalais moom mu dem campagne yi kon loolu ñu xeex démocratie boobu ñëw jox ko ko xamul valeur am parce que fekkee wut ko parce que bokkut ca xeex ko parce que toogul ba ñuy xeex. kon xamul valeur xeex pour démocratie moo tax tey mu jël suñu démocratie bi di ko foyee def ko foykaay loolu duñ ko nangu kon nag oo nañ sénégalais yëpp fépp foo mun ci nekk ci adduna bi vendredi 5 à partir de 15 heures ñun fii ci Dakar danañ doxee buntu ministère de l' intérieur jëm buntu assemblée feneen fu ngeen mun ci nekk ci Sénégal yi def leen loolu feneen fu ngeen nekk ci adduna bi dem leen ci buntu ambassade du Sénégal yëpp oo leen presse internationale bi yëpp. ñu gis que ne askanu Sénégal ñoom ñëpp ànd nañ pour fustiger ki nga xamante ne jaaykatu doole la ki nga xamante ne nguur moo ko ñor ki nga xamante ne nasaxal na Sénégal Sénégal intéressé wu ko fonkul Sénégal yi gëmul Sénégal kon nag dig daje baa ngi noonu incha allah di ko wax yéen ñëpp bu ñu fàttee Aliou Sané wax na ko léegi suñu mbokk yii ci Mali dañoo wane seen détermination génn di génn di génn ba keroog ñu am ndam kon nag Mali bi nga xamante ne suñu la doon jëlee exemple de démocratie aujourd'hui moom jox nañu ab leçon ndax Macky Sall mii moo ñu ko moo ñu ko yóbbee kon Sénégal gàcce la tey jii ci àdduna bi Sénégal gàcce la ci Afrique boo Sall li mu def suñu démocratie kon nag bu ñu toog ñun ñëpp taxaw xeex bi tàmbali na. maa maa ngi wax nekk ci régime boo xam ne état euh, xam nañ ni lépp luy ndaje dañ koy aaye ndax da ngeen nar a def forcing ngir ngir amal seen ndox mi ñaxtu boobu. buy digle sangaay day fekk nga sang. nguur gi digle càngaay moo musul sangu moom ndax Macky def na fi tournée économique Diouf Sarr inauguré na fi ay pont te moom mooy ministre de la santé moom mooy yor wér gu yaram gi moo woote mobilisé pour inaugurer ay pont kon ku xam Y'en a marre gis ne bi Covid bi ñëwee démarche bañ ca def bind ci ay morceau suñu artistes yi dëgg ko def ci ay sensibilisation mais ci ay masque te dërëmu nguur gi dugg ci dërëmu nguur gi dugg ci kon ñun. am nañ conscience ci loolee waaye waru tax Macky Sall di ci profité pour ci def ay mbiram ci ginnaaw duñ ko nangu duñ ko nangu parce que Covid moo fi am Macky Sall di def lu ko neex non duñ ko nangu ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gëmoon ne jamono Covid waruñoo wootee manifestation ndax taxawee nañu boobu taxawaay waaye lu ëpp tuuru lu ëpp dafa tuuru dañu sonn Sénégalais yi dañu sonn mënuñ fi nekk jafe-jafe yi bëri Macky Sall bu ko teg suñu ndodd li aussi kidnappé suñu démocratie ñun ñëpp ñu ngi ci liberté provisoire amul kenn kuy dox Sénégal ku mucc amul kenn kuy dox Sénégal ku mucc bu ñu demee ba tey Macky utiliser suñu police police bi def ay poste di menacer les citoyens naan leen dinaa leen dóor dinaa leen dumat dinaa leen nangam nga xam ne réew moom jaxasoo na kon appel baa ngi noonu képp koo xam ne homme politique na dinañ dem ñu seeti la woo la xamal la ne tey ci Ousmane Sonko la dal démb ci Khalifa la woon barki démb ci Karim Wade la woon que suba ci yow moomu lay daal kon dinañ seeti képp kuy homme politique dinañ seeti képp kuy syndicat dinañ seeti képp kuy société civile dinañ it dooleel lépp luy dynamique citoyenne buy xeex pour sàmm suñu démocratie ñun yàlla maar danañ dem ñu bokk ca toftalu ca lépp lu fi nit di sumb mu jëm ci dëggal suñu démocratie jëmmal suñu démocratie ñun yàlla maar danañ ca sóobu ba tooy ca xepp incha allahu rabbi da ngeen